dénk wàllum économie ak ministre bi ñu dénk wàllum finance ak ministre bi ñu dénk wàllum justice moom Amadou Ba daan nay wax lu ëpp juróom benn milliard ci manquement nemmeeku nañ ko ci mille milliards yi waaye nag état bu Sénégal yi jël yu mat sëkk journal bi xëy di ñu ko leeralal moom Amadou Ba daan nay wax ne six yi boo ko xaymaa ci mille milliards yi mën nañoo wax ne lu tuuti la waaye lu am solo la ndax alalu réew mi dañu di Z Amadou Ba moom nag daat nay ñaawlu bu baax a baax manquement yi nga xam ne am na ci yéen kaay gi di enquête nee na jamono ji ñoo ngi wër a ñan ñoo def ay njombee ki girawale ci xaalis bi nga xam ne moom lañ leen dénkoon ci coronavirus bi ministre Amadou Ba moom daat nay wax ne danañu ci ubbi ab information judiciaire yéen kaay gi de Le Quotidien ak la xëy di ñu xibaar na ñu Aminata Touré jamono ji soo mooy tuwulee dina dugg ni ruba ndax dañoo def ab ñi nga xam ne ñuy waa inspection générale d'État ñoo daal di lëmbët naan la Aminata Touré yore woon conseil économique social environnemental waaye la nga xam ne moom lañ ca gis journal bi nee doy na waar genn xeetu doy waar goo xam ne jéggi na dayoo ëpp na ñaari milliards ak yu fekk yoo xam ne ba léegi gars xamuñu fan la jëm yéene kaay gi nee inspection générale d'État ñoom tim ci seen rapport bi gis nañu ne bëri nay violation règle passation des marchés publics yoo xam ne am na ak ay contrat yoo xam ne conseil économique social environnemental jamonoy Aminata Touré def na ko ki organe de presse yoo xam rapportu inspection générale d'État ci lu ëpp ñaari milliards yéen kaay gi di la lu ëpp ñaari milliards yooyee am na si milliards ak bu fekk boo xam ne maanaam dañu ko retiré liquide liquide ci turu Aminata Touré jaarale ko ci agent comptable bu conseil économique social environnemental agent comptable bi bi ñu ko laajee xaalis fan la ñu ko dugal la mu leen tontu mooy laaj leen ko Aminata Touré ak daaf bi yéen kaay gi nee na 31 janvier 2021 retiré nañ liquide lu toll ci 100 millions 28 février 2020 retiré nañ fa lu toll avril 2020 retiré nañ fa lu toll ci 120 millions 25 mai 2020 retiré nañ fa lu toll ci 120 millions bi nee loole lépp bokk na li ñu koy toppee lu ëpp 150 yoo xam ne jëlee nañ ko ci conseil économique social et environnemental séddale ko ay organe de presse yéen di enquête ñu xëy fekk fa Aminata Touré muy wax ci rapport Cour des comptes bi nga xam ne jamono ji mu lëmbaaj réew mi nee na alalu askan wi nu ñu ko yoree dafa war a sell Aminata Touré ne bu ñu demee bay gis am ministre di attaquer ay institutions loolee doy na du ci wax ndax goroom ñu koy tudd ci mbir mi ba tey moom Aminata Touré ci biir journal bii di la témoin nee na Macky amul sañ-sañ sampan dëndëm te du bokk ci élection présidentielle 2024 yéen a kaay gii di bés bi Aminata Touré am ak Sonko nee na lépp mën a nekk li nekk ci yéen a kaay gii di Rewmi Quotidien mooy waxi Mamadou Sy Albert daal nay wax ne état yu Sénégal dañoo yàgg jëfandikoo ay rapport ngir nag faagaagal seeni adversaire politique yéen a kaay gii di La Tribune ñu koy fekk fa Mamadou Lamine Diallo nee na état bu Sénégal dëgg ci ni nga xam ne moom lañuy ñuy exploité gaz bi ca diwaanu Saint-Louis yéenekaay gi di Rewmi Quotidien wax ci mbiri Pape Alé Niang nee na coordination association de presse maanaam gi nga xam ne moo ëmb taskatu xabaar yi ñoom nag nee nañu Amadou Diouf mi nga xam ne mooy procureur de la République ak Macky Sall mi nga xam ne mooy njiitu réew na leen leer na ñooy responsable bu dee nag Pape Alé Niang dafa dee ci kasu bi tey ji taskatu xabaar yi danañu amal mobilisation ci maison de la presse na ak ko tëj ci boo xam ne bu yoon la waaye nag faatoo ci kasu bi gën a la muy faatoo ci hôpital la Guy Marius Sagna ak ñi mu àndala ñoom nee nañu samedi bi ñu dëgma juróom-ñaari fan ci weeru janvier dinañu amal toogaanu ñaxtu ca buntu hôpital principal bi nga xam ne fa la Pape Alé Niang nekk Assane Samb xëy jël xalimama nee na jamono ji nag muy Pape Alé Niang muy état bu Sénégal kenn ku nekk yaa ngi fooye safara on joue avec le feu Assane Samb nee na taskatu xabaar boo xam ne dafa feebar ba maara détail à tout moment mën naa na ko ab liberté